Amar Faye Amar Faye moo yor bi noonu corner attention Amar Faye tiré premier poteau attention poteau waaye c'est le but c'est le but de Modou Mané c'est le caaxi ci corner ki nga xam ne Amar Faye. avant ñuy door coup avant ñuy door am na avant ñuy am coup franc bi ma corner bi daam maa ngi la bëggoon wax ne il faut qu'on utilise nos grandes tailles maa ngi maa ngi la bëggoon wax c'est daam daam daam lii waaw c'est de la tête si corner voilà c'est le but de centre de Modou Omar Faye Cheikh Omar Faye mi ngi noonu Jaraaf mené na 1 but à 0 Jaraaf par Pato Pato Le Gambien Modou Mané, merci. Merci à Modou Mané.